sëriñ Mabandji Khoudia Balla sëriñ Mabandji Khoudia Balla mi ngi gane àdduna ci atum 1870 ci dëkk bu ñuy wax Siin Njaay Siin Njaay mi ngi ci suuf si di Njàmbur ci wetu dëkk bu ñuy wax Tuuba Mérina juróom-ñaari kilomètre moo dox diggante Siin Njaay ak dëkk boobu di Ndóoyeen foofu la sëriñ Mabandji Khoudia Balla mii feeñe jamono sëriñ Mabandji Khoudia Balla doomu soxna Khoudia Balla Njaay la ak ku ñuy wax sëriñ Njaga Njaay sëriñ Njaga Njaay mi meññ sëriñ Mabandji Khoudia Balla ñi ngi ko gënoon a xam ci sëriñ Njaga Xari Jaxate sëriñ Mabandji Balla Njaay mi nag am na ñu mbokkal soxna xujja Balla ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Baara Say Njaay ibnu soxna xujja Balla ibnu sëriñ Njaga Njaay ak ku ñuy wax sëriñ Samsu Njaay ibnu soxna xujja Balla Njaay ak sëriñ Njaga Njaay ak moom sëriñ ma bànj xujja Balla Njaay ibnu soxna xujja Balla ak kii di sëriñ Njaga Njaay ñaar la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñett bi mu matee dal alxuraanul karim moom sëriñ ma bànj xujja Balla Njaay ku ñuy wax sëriñ Sayer Njaay moo ko dalal alxuraanul karim ci moom la nekk ba mokkal alxuraanul karim dëkk boobu di siin njaay laataa muy mokkal alxuraanul karim nag bàyyi taxam boobu di sëriñ sayer njaay àndoon naag moom dem seeti ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci mbàkke kajoor ma wax leen nag sëriñ ma bànj xujja bàlla njaay li ko indi ci yoon wi ngir mu jaayante nag nekkum murit ndax waajuram wa sëriñ njaga njaay wëlle réew ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim la woon ba tax na daana ñëw di seet si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim seexul xaddim itam daana ko seeti kon ñoom ñaar ay wëllëre lañ woon ginnaaw bu mu génnee àdduna nag moom sëriñ njaga njaay ba noppi ba bis nag sëriñ sayaar njaay miy bàyyi taxu sëriñ ma bànj xuja bàll mi ñëwoon nag doon ziyaare si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci mbàkke kajoor ca yoon woowa nag indaale na sëriñ ma bànj xuja bàll njaay mi ndax mag ñi daanañ def buñ masaa di jàngal kenn suñuy tukki bañ kooka leb bind dana tax nag bu ñuy tukki yóbbaale ko loolu moom moo taxoon sëriñ sayaar njaay mi indaale doomum ji di sëriñ ma bànj xuja bàll njaay ci mbàkke kajoor ginnaaw bu mu egsee mbàkke kajoor ba gisante ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim seexul xaddim laaj na ko ana waa siin njaay sëriñ sayer njaay di ko tontu naan ko waa siin njaay ña nga fa ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim laaj na ba ba na fi doom waa wala déet sëriñ sayer njaay di tontu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko wax ni sëriñ njaga njaay kay ba na fi ba sax kenn ka moom laa àndal di ma bànji xujja bàlla ginnaaw bi nag sëriñ sayer njaay jóg na woolu sëriñ ma bànji xujja bàlla ngir mu ñëw ziyaare si ba noppi nag sëriñ tubaa seexul xaddim laaj na ma bànji noo tudd mu di ko xamal ne ma bànji xujja bàlla njaay la laa tudd seexul xaddim di wax sëriñ ma sayeer njaay di ko wax ni kii kay xanaa maamam lañ ko tudde sëriñ njaga njaay waajuram ma bànji la tudd seexul xaddim keroog mi ngi xamal sëriñ sayeer njaay di ko wax ni sikkuwul de xam na sëriñ njaga njaay mooy waajuram laaj na nag sëriñ ma bànji xuja bàll fañ la am njàngam toll mu di ko wax fu am njàngam toll ca booba itam day tombeek nag kii di sëriñ ma bànji xuja bàll ay atam daanaka ci fukki at lay toll ginnaaw bu mu àndaate waajuram wow di sëriñ ma sayeer njaay nag delluwaat nag foofu mu nekkoon di njaay nag lii alxuraanul karim la seexul xaddiim nag doo ko yónnee ndaw ñu jëli li ko ko bi mu ñëwee nag la ko jébbal maam na ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ngir mu jàngal ko xam-xam kon sëriñ ma bànj xujja bàll lii moo ko indi ci yoon wi mu nekk murit nag topp ci ginnaaw ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim mu boole ko ak maam na ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ngir mu wéyal am njàngam ci wàllu xam-xam bi mu ñëwee mbàkke kajoor ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ tubaa seexul xaddiim maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ko jébbaloon ngir mu jàngal nag lii lii di xam-xam boole koog nag def nag am ndénkaane bu yaatu nag ci jëmm jooju di sëriñ ma bànji xuja balla bisub keroog ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim wax maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru di ko wax ne ma bànji xuja ball mi kat dama bëgg bu ëllëgee mu bokk ci ñiy raxas di tontu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko wax ne yow kay sab der taqul te gàkkul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di tontu maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru di ko wax ne aha ñu bari kay nee bi ma dikkee bokk naa ci ñi fay taaru daara yi loolu nag laa bëgg bu ëllëgee ma bànj xujja bàll mii kat bokk ci ñiy raxas sama der moo tax itam xam-xam bi nekk ci yow laa bëgg nga def ko ci moom kon lii la sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim waxoon maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru karog bi mu koy jébbal sëriñ ma bànj xujja bàll ci dëkk boobu di Mbàkke Kajoor sëriñ ma bànj xujja bàll nag wéy nag nekk ci loxoy maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci wàllum njàng ci dëkk boobu di Mbàkke Kajoor ci loxoy ku baax ki xaadim bàyyi ko mbàkke kajoor ñëw mbàkke bawal sañ si daaru salaam tuubaa ginnaaw tuubaa mbàkke baari jolof mbàkke baari jolof googu nag bokkoon nag ña fa nekkoon nag ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaadim moom sëriñ ma bànji xujja bàlla ndax bi sëriñ tuubaa seexul xaadim di dem ci géej gi wala muy wuy ji gouverneur bi ci ndar géej sëriñ ma bànji xujja bàlla bokkoon na ci ñi ko yorle woon ay bagaasam mu jóge ci dëkk boobu di mbàkke baari jolof ngir dem ci dëkk boobu di ndar géej sëriñ ma bànji xujja bàlla ci mbooloo moomu sëriñ tubaa seexul xaddim ci la bokkoon ngir firndeel ne rek keroog bi sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyi ko mbàkke baari jolof di dem ndar géej ngir di wuy gouverneur bi sëriñ ma bànj xujja bàll ci la bokkoon soo demee ci téeréb doomu seexul xaddim bi ñuy wax mi na ni baaxil xaddim cheikh mamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddim ma ngi fay nettali ne sëriñ ma bànj xujja bàll moo ko wax ne bisub keroog mooy bi ñu bàyyi ko mbàkke baari jolof di dem fi nga xam ne ni moom mooy ndar géej ngir di wuy ji gouverneur bi tam bokkoon ci ñi yorle woon sëriñ tubaa seexul xaddim ay ay bagaasam keroog dem nañ ci yoon yi ba aw mar sonal leen trop sëriñ tubaa seexul xadim bëgg a jàpp dañoo séen lenn luy ñuul jóge ci penk bi di leen karsi ginnaaw bu mu ñëwee ba egsi ci ñoom nag la defal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim mu jàpp ba noppi moom itam mu jox leen ñu naan waaye ba nëga ni loola waxut ak ñoom ginnaaw bu ñu naanee ba màndi nag la dem romb leen lii moom soo demee ci mina ni baaxil xadim bu cheikh mamadul bachir cheikh mamadul bachir ma ngi ko fay nettali te sëriñ ma bànj xujja bàll moo sëriñ tubaa seexul xaddiim bi mu jógee mbàkke baari jolof di wuy ji gouverneur bi ci ndar géej lii rek day firndeel ne sëriñ ma bànj xuja bàll ci ñi àndoon ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci la bokkoon ginnaaw ndar géej nag dafa dellusiwaat mbàkke baari jolof mbàkke baari jolof googu itam yàggu fa ab diir bu néew la fa def dellu nag ci dëkkub cosaanam ba di siin njaay foofu nag la toog ba ni sëriñ tubaa seexul xaddiim ñibbisee ci géej gi mu def nag comme ni ko mag ñépp defe ñëw ziyaare si ku baax dëkk bu mu cosaanoo moom sëriñ ma bànj xujja bàlla di jàng ak di jàngale comme ni ko yoonu murit baaxoo di defee ndax kat ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim waxoon na maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru keroog bi mu koy jébbal sëriñ ma bànj xujja bàlla ci dëkk boobu di mbàkke kajoor di ko wax ne ma bànj xujja bàll mi ko dama bëgg mu bokk ci bu ëllëgee ñiy faxas sama der ndax kat ñu bari nee nañ bi ma dikkeeg léegi bokk naa ci ñi fay taalu yi novembre 1902 mu def comme ni ko mag ñépp defee ñëw ziyaare si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim daaru marnaan la gise waate ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim mu delluwaat nag siin njaay sëriñ tubaa seexul xaddiim nag wéy desandi daaru marnaan ab diir nag la fa def amaat fa takk-takk ak mbaaxaan tubaab bi duggaat ci ñuy boot sëriñ tubaa seexul xaddiim ci réew mii di gànnaar gànnaar googu sëriñ ma bànj xujja baal la daana fa dem ay yooni yooni yoon di ziyaare ji ku ki sëriñ tubaa seexul xaddiim waaye yoon wu ne nag bu demee du fa toog bu ziyaaree ba noppi nag day delsiwaat ci siin njaay googu ndax kat foofu la ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim dëël ginnaaw gànnaar ca yéen jolof ca yéen jolof googu itam sëriñ ma bànj xujja bàll daana fa dem ginnaaw ca yéen jolof njaareem njaareem googu itam sëriñ ma bànj xujja bàll itam daana fa dem di fekki ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim waaye kii di sëriñ ma bànj xujja bàll njaay nag sëñcul ab dëkk siin njaay googu la nekkoon te siin njaay googu itam foofu la feeñe jamono ndax moom ci jàng ak jàngale la nekkoon mu wéy nag des nag ci dëkk boobu di siin njaay heure Touba Seexul Xaddiim dem ziyaare ji ko wala ku baax ki Sëriñ Touba Seexul Xaddiim soxla ko ba ni mu génnee àdduna mu nekkoon na ku yéeme moom sëriñ ma bàññi xujja bàll ba tax na liñ tudde fàtte daawu ko def loolu itam taxoon na ku baax ki Sëriñ Touba Seexul Xaddiim daana def léeg-léeg su masaa di wax mag ñi dara wala muy dénkaane sëriñ ma bàññi xujja bàll daana sàkku nag mu fekke ko ndax moom noonu Seexul Xaddiim di waxee bu fa masaa jóge di ko nettile nettaliwaat itam noonu la koy nettilee ba tax na sax mbindum Sëriñ Touba Seexul Xaddiim bi wala tomb yi baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim daa def sëriñ ma bànj xujja balla def na ci ab téere ba tax na doomu sëriñ tubaa seexul xaddiim bi ñuy wax cheikh abdou xaadir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim daana wax na ku bëgg netti lépp ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim bu wér déglul sëriñ ma bànj xujja balla wala sëriñ ma demba kebe wala sëriñ muhammadan ture ñett ñii moom ni sëriñ tubaa seexul xaddim daa waxe heure boo leen seetee itam noonu lañ la koy nettalee ba tey doomu sëriñ ma bànj xujja bàll bii di sëriñ mouhamadou raseex njaay doomu cheikh abdou xaadir bii ñuy wax sëriñ moustapha mbàkke ibnu cheikh abdou xaadir mbàkke defloo woon na ko ay waxtaan ci waxi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim yi nga xam ne nii waajuram moo ko soloo woon ba tax na waxtaan yooyu sëriñ mouhamadou raseex njaay defoon ku dem ci marché bi daa ko gis sëriñ moustapha mbàkke moom cheikh abdou xaadir mbàkke nag mi ngi ci barkeelu woon ngir na waajuram waxe woon waxoon ne ku soxla waxtaanu seexul xaddim wu wér demal seeti sëriñ ma bànj xujja balla kon moom fàtte moom daawu ko def tey ni seexul xaddim daa waxe su masaa nettaliwaat waxu seexul xaddim itam noonu la koy nettalee taxoon na mag ñu baree baree daa daanañ ko seeti foofu mu nekk di siin njaay taxoon na itam moom mag ñi kenn ku ne amonte woon naag ñoom ak kóllëre rawatina njabootu ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim ku amoon relation la ak cheikh ba tax na ci xilaaf ak cheikh mamadul moustapha mbàkke bindoon na ak xasida yitoon ko cheikh Moustapha Mbacke ngir di ca ñaan ndox ñu teewlu xasida gim bindoon moom sëriñ ma bànj xujja bàll ci xilaaf ak Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke te doon ko ci sàkku ndox ya rabbi xud li saxaaban mugniyan karaman mubarakan fihi an shakwa alladi xurima xajjil lana kulla hattaalin bi aafiyatin yasuxu yumnan wa yusran daama munsajima adhuuka ya rabbi yowma sabti murtajiyan an la ara bacda hada ma yuri wa jama min duni al aaqaati wal akdaari xaysu atat maraqabi jumlatan شفيتني سقما يا رب كلي بمن بانت خلافته رد به ما عرى زرحي وقد حسما كف الأذى سرمدا عن زرحنا أبدا حتى يرى يافحا في بيته الكرما يا أكرما قادرا برا ومقتدرا جدلي بودق دواما دب لي كرما أنت الكريم المخيس الخلق في فلق أقلقني الجدب عن قصب أذل وكما ولتمحو أحسانهم عنهم بهاتلة بمن به نلت فيدا يورث الحكما يا رب حجل لنا بالجود مرحمة يكاد سرعي إلى وهن يري نقما منا تقبل بلا شيء يكدرنا أنت العليم الخبير الفرد معتزما أبقى صلاة بتسليم بلا عدد على الذي هبه يزعد من حرما والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما defaatoon na geneen xasida itam ci Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké ibnu Serigne Touba Cheikhoul Khadim Serigne ma bànj xujja balla way na itam ay way kii di Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ibnu Serigne Touba Cheikhoul Khadim ca biir wayee nag ma ngi cay kañ kii di Cheikh Mamadou Fadal Mbacké di ca wax ay jikko yu Cheikh mamadul faadal mbàkke làmboo woon di ñu xamale kan mooy cheikh mamadul faadal mbàkke ci ak tabam ay jikkoom ak melokaanam ñu teewlu waaye sëriñ ma bànj xujja bàlla njaay defoon ci cheikh mamadul faadal mbàkke ci kàllaamay arab man naala nuqtata baadi fadlika faadilu naala alfadaila kullaha ya faadilu xiinan daahu almustaxiisu lihimmatin fi lxiin yaqdi tilxawaaija faadilu minhu aljazilu min annawaali jamiiha linnaasi qad jaa bi tafadduli faadilu كريمك القاضي الحوائج جملة صار الزمان لسان شكرك فاضل دون الزيارة هاقني سيري على أقدام شوق راجلا يا فاضل أعجب به وبحبه من زاره ولهن يسوق شكوره يا فاضل لولا جميل سطوره في أرضنا لم يغد ينزل للضيافة فاضل فضل القدير وجوده أبدى لنا قبل القيام بشارة يا فاضل الله فضل بعضهم في رزقه هل كيف يدرك تحت نعلك فاضل فاضل ضل القلوب لذا الوجود خواية إذ ضل جل عن رشادك فاضل لله قوم هاجروا في حبه فغدوا شموس فديلة يا فاضل ننحو لمن فيه المكارم عشرة صدق الحديث وصدق بأس فاضل إكرام جار ثالثا وأداؤه كل الأمانة رابعا يا فاضل سلة لرحم غامسا مع بذله عرفا مكافات صنيعا فاضل حفظ الذمام لصاحب وقراؤه كل الضيوف مع الحيا يا فاضل لطف الكلام مع الأنام جميعهم قد حد من أخلاقه يا فاضل ناس لإحسان كذاك إساءة فضلا عليه تحققا يا فاضل العلم والحلم العميم قميصه صبر وشكر سوه يا فاضل ba tey ci kóllëre sëriñ ma bànj xuja bàll ginnaaw cheikh mamadul faadal mbàkke ku amoon kóllëre la ak cheikh mamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xadim ndax soo demee ci téere bi di mi na ni baaxil xadim bu cheikh mamadul bachir cheikh mamadul bachir ma ngi fay nettali lu bare bare bari te sëriñ ma bànj xujja bàlla moo ko ko wax cheikh murtada mbàkke ibnu xaadim rasul wóllëréew sëriñ ma bànj xujja bàlla la ba tax na itam kii di sëriñ ma bànj xujja bàlla sax tudde na ko doom cheikh abdou xaadir mbàkke kasaalika ba tax na xalifaam bii fi nekk sax cheikh abdou xaadir mbàkke la ko tuddee mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru wóllëréew sëriñ ma bànj xujja bàlla la woon ba tax na bi mu jaayan teeg sëriñ tubaa seexul xadim ci mbàkke kajoor sëriñ tubaa seexul xadim maam ceerno la ko boolee loon ba tax na kii woon na maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru doom sëriñ a Kebe ñoom ñaar moom sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim moo leen boole woon ci njaareem di leen wax ne yowmal xiyaam yéen ñaar yéenay dendi kër bu kenn ki sàkkatee jërutu ka ca des di sàkket ndax seeni kër ñooy taqaloo ci ajjana sëriñ Muhammadu Jóob Dagana moom itam daana dem siin njaay googu daa fekki sëriñ ma bànj xuja bàlla ndaxu kóllëre gu leen Seexul Xaddim boole woon ak ñeneen ak ñeneen ci mag ñi ñu sëriñ ma bànj xuja bàlla amaloon lii di relation sëriñ tubaa seexul xaddiim rek moo leen safoon ba tax na bépp mag mum bokkaloon ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim soppeem nga woon xaritam nga woon ndax kenn ku ne sëriñ tubaa seexul xaddiim nga daa xeñtu ci sa moroom ba tax na siin njaay googu mu nekkoon ñu baree bare baree bari ci kilifa yi fekk nañ ko fa ngir di ko ziyaare ak di ko nemmeeku mu nekk nag ku ràññeeku ci tund woowu di wu siin njaay wi ba tax na itam ñooñu mu nekkaloon ci tund woowu saa buñ masaa jaaxle itam ñëw moom sëriñ ma bànji xuja bàlla ba tey ci mbindum sëriñ ma bànji xuja bàlla wayoon na ay way ginnaaw foofu mu cosaanoo di njégee ginnaaw bu foofu maralee maral wu metti defoon nañ délégation seet ko ngir mu ñaanitim tund woowu am ndox ginnaaw buñ ko seet see ba noppi nag defoon na ak xasida di ca baawu naan ñu teewlu xasida gim defaloon ginnaaw bu ko waa tund woowu mu cosaanoo seet see di njégee ngir doon sàkku ci moom am ndox tam defaloon leen ak xasida goo xam ne xasida baawu naan la ñu teewlu xasida ga tubna ilayka ma al xushuuxi ya baari أحتجي غفران أوزاري فالإنس والجن والدواب قاتبة يمشون هونا إلى اشتكال امتاري لما أتاني جميع المشكين أسى نهدت في الحين لإنشاد أشعاري تجيب دعوة مضطر دعاك هنا بحق من قاد أهل الفوز للجاري نيران شهوة أهل الدهر قد غلبت أنوار أهل التقى أزل أزى أزى الجاري فقلت طوبى لمن أعضاءهم خدعت في خدمة الراحل الأقدار والجهر والعار لو يبذلون لهذا الندب أنفسهم شوقا وأموالهم في كل أوتار لجاءهم وابل منسجم أبدا حاوين فوسا به فضلا بأنوار ما شاء كان بلا خلف يرى أبدا ما لم يشأ لم يكن يجري من أقدار كونوا كمن كان في لج البحور ولم يكن له ملجأ سواه مدرار كونوا لديه أذلاء وكان لهم بلحظة منه ياتي كل أمتار خير صلاة بتسليم alayhi bila adadin wala gaayatin taati bi amtaari sëriñ ma bànj xuja bàlla itam bind na yeneen ak yeneeni xasida ñu man cee ràññee xasidagum tagg cheikh mamadul moustapha mbàkke xasidagum tagg xaadim rasul xasidagum tagg maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ak yeneen ak yeneeni xasida ak tomb yi nga xam ne nii mooy kàddu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim yooyu itam mool nañ ko def ko ci ay téere sëriñ ma bànj xuja bàlla ko daa bind la yàlla ñu ko yàlla fayal ba tey ci diggante sëriñ ma bànj xuja bàlla ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim njaareem googu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mas na ko faa dénk moom sëriñ ma bànj xujja balla ndax doomu rakkam bii di sëriñ moodu xari njaay mi mbokkal sëriñ njaga njaay moo bindoon kaamilub alxuraan ngir ñu yit ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci njaareem doomu sëriñ moodu xari njaay ba nag moo tuddoon sëriñ basiiru njaay ginnaaw ba mu àndeeg waajuram woowu ci njaareem ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba seexul xaddim yëg na sëriñ basiiru njaay mi moom sëriñ moodu xari njaay mi bind na kaamilub alxuraan moom lañ ko ko indil keroog mi ngi wax sëriñ ma bànj xujja balla di ko wax na njabootug sëriñ du Xari Njaay de ak njabootug ma bànj xujja lu ñu gàtt gàtt gàtt xam-xam ñeenti téere yi moom war nañ koo mokkal muy téere bu ñuy wax Laxdariyu si téere bu ñuy wax Risaala ak téere bu ñuy wax Aljummiya ba tey njaareem googu la mujjee gisee ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim weer laata ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim di génn àdduna mu dëppoo woon nag bisum ñaar fukki fan ci weeru tabaski ci fukki fan yaag juróom ci weeru tamxarit wa ci la ku baax ki sëriñ Tubaa génn àdduna kon weer laata ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di wujj suñu boroom sëriñ ma bànj xujja bàlla gisee naa ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim muy ñaar fukki fani tabaski wa keroog bi ñu gisee ñoom ñaar ci ñaar fukki fani tabaski wow ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim dénkoon na sëriñ ma bànj xujja bàlla waaye wax ja ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim waxoon sëriñ ma bànj xujja bàlla jortu doon ne ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim day tàggu toog moom waaye nag wax ji jaaxal na ko lool waaye ginnaaw biñ indee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci dëkk bu sell bii di Touba ba noppi nag la sëriñ ma bànj xujja bàlla nag doo ko xam ne nag la ko seexul xaddim waxoon mooy da koy doon tàggu ci bisub ñaar fukki fani tabaski googu bisub keroog seexul xaddim nee na ko ma bànj xujja bàlla soo delloo ci dëkk boobu di siin njaay bu kenn mën a dox sa digganteeg sa borom seexul xaddim wax boobu keroog wax na ko sëriñ ma bànj xujja bàlla lu tolloo ñetti yoon sëriñ ma bànj xujja njaay wax ci xelam ne lii de mbir la sëriñ tubaa seexul xaddim ko ba mu ñëw mu ne kon bokk na ci mag ñi mujjee gis ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ndax moom ziyaare na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ñaar fukki fan yi tabaski wa ci fukki fan yaa juróom ñeent ci weeru tamxarit di weer wa ca topp ci la ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim génn àdduna mu wéy nag desandi ci dëkk boobu di siin njaay foofu léppam nag jébbal ki fi nekkaloon sëriñ tubaa seexul xaddiim di cheikh mamadul mustapha mbàkke ibnu xaadimu rasuul ginnaaw cheikh mamadul mustapha mbàkke nag mu fab léppam nag jébbal ñaareelu xalifa xaadim rasuul di cheikh mamadul faadal mbàkke tax na itam ci xilaaf ak cheikh mamadul faadal mbàkke la génnee àdduna njabootug sëriñ ma bànj xujja bàlla njaay itam ci quartier bii di ndaamaatu la ñu féete ba tax na itam ci ndaamaatu jooju sax am na jàkk ju fa nekk ju ñuy wooye jàkkay sëriñ ma bànj xujja bàlla am na ñeneen itam nag ñu dëkke nag ci quartier bii di gédee ndax xalifaam bii ko wuutu di sëriñ abdu xaadir njaay moo nekk sax imaamu jàkkay cheikh abdu xaadir mbàkke ci gédee moom it foofu la dëkkee ba tax na itam bi ñu koy fàttaliku sax foofu lañ koy fàttalikoo moom sëriñ ma bànj xujja bàlla sëriñ ma bànj xujja bàlla mi ngi génn génn àdduna bisub àllarba ñaar fukki fan ci weeru baraxlu ci atum 1369 ci gàddaay gi àllarba ñaar fukki fan yi baraxlu ci atum 1369 ci gàddaay gi mu dëppoog mercredi 7 juin 1950 mercredi 7 juin 1950 ci dëkk boobu mu cosaano di Siin Njaay ñu jële ko Siin Njaay indi ko Touba ngir fas yéene koo jébbal si boroomam ci xilaaf ak Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ibnu Sëriñ Touba Seexul Xaddim Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ginnaaw buñ ko jébbalee boroomam ba noppi nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke seedeel na ko seede bu am solo te wetu xaritam ba Sëriñ Mademba Kebe Sëriñ Mademba Kebe moom mook Sëriñ ma bànj xujja bàll mi Sëriñ Touba Seexul Xaddim mas na leen a wax ne yéen ñaar yéenay dend ay kër ci ajjana moo tax ñoom ñaar ay xarit lañ woon ay wóolleere lañ woon ci diirum nag liñ bokk nekkandoo ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba tax na bi sëriñ ma demba kebe làqoo ba mu am at ak juróomi weer ak fukki fan ak juróom ñett la xaritam ba di sëriñ ma bànj xujja balla làqu ñu denc ko ca wetu xaritam ba sëriñ ma demba kebe moo tax soo demee ci armeer yi mag yi ñoom ñaar ñoo bokk fu ñu tëddaale sëriñ ma bànj xujja balla nag ay xalifaam nii la tëddee ci atu 1950 ba atu 1978 sëriñ mouhamadou mansour njaay mooy ki ko njëkk a wuutu ñaareelu xalifa sëriñ ma bànj xujja balla mooy ko ñuy wax sëriñ murtada njaay moo ko wuutu ci atu 1978 ba atu 1979 ñetteelu xalifa sëriñ ma bànj Khoja Balla mooy ku ñuy wax sëriñ Mouhamadou Rachid Ndiaye moo ko wutu ci atum 1979 ba atum 2004 ñeenteelu xalifa sëriñ ma bànj Khoja Balla Ndiaye mooy ku ñuy wax sëriñ Modou Mbacke Ndiaye moo ko wutu ci atum 2004 ba 2007 ñett juróomeelu xalifa sëriñ ma bànj xujja bàlla mooy ku ñuy wax sëriñ abdu xaadir njaay moo fi toog 2007 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam te wéral ay cëram moom itam la faye sëriñam ba sëriñ abdu xaadir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xadiim sëriñ abdu xaadir njaay mi sax moo nekk imaamu jàkkay cheikh abdu xaadir mbàkke bi nekk géde ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi te guddal aw fanam te yàggal ko nag ci toogaayu sëriñ ma bànj xujja bàlla ak mbooleem ay rakkam ak mbooleem ñum séqal sëriñ sëriñ ma bànj xujja bàlla nag fàttaliku wala am na bis buñ ko daa fàttaliku muy ñaar fukki fan ci weeru baraxlu di bis bi mu génnoon àdduna bis boobu njabootam gi jàppoon nañ ko ci daa ko ci fàttaliku waaye ginnaaw buñ ko yëgalee sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ci at mu njëkk mi ngi ko njëkk a màggal sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke mi ngi leen doon xamal ne bu sañoon daal bis yooyu ñu bàyyi koo màggal ci la njaboot gi nag ba beneen bis muy ay bisu sëriñ ma bànj xujja balla di ñaar fukki fan ak juróom ñaar ya màggal gi itam ngi koy amale fii njabootuk sëriñ ma bànj xujja balla dëkkee muy Touba Soura ñi ngi ko njëkk a amale itam ci xilaaf ak sëriñ Mouhamed Mouhamadou Rasikh Ndiaye boobaak léegi nag ñu ngi koy màggal ci bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar di ay bisu sëriñ ma bànji xujja balla ci teewaayu mbooleem njabootam ñuy ñaan ci daraja sëriñ ma bànji xujja balla yàlla na suñ boroom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te lii di jafe-jafe réew mi tam yàlla na ko suñ